Mass Dieng maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. voilà Mass Dieng nga nekk euh, président association euh, cellule régionale euh, bu association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal tey jii mu mel ni am na jafe-jafe ci payooru indemnisation spéciale yi nga xam ni njiitu réew Sénégal moo leen ko jagleel yéen militaires invalides yi retraités yi blessés de guerre yi est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun si problème boobu naka la demee exactement ba am ñu jot am ñoo ñoo xam ne jotuñ. waaw jërëjëf euh, soxna si euh, d'ailleurs damay bëgg a def tuuti rek fàttaliku ne ne lii lu ko waral mooy euh, président Macky Sall son excellence nekk jiitu armée bi dafa waxoon dafa xool mu ne situation yi invalidité vraiment métti na mu bëgg ko regle nee na définitivement maanaam ba nga xam ne tolof tolof yi bu jeexul sax mu wàññeeku alors ca la laajoon nag. via seen ministère mooy forces armées fondation ak ñooñu ñu toog ak ministère yi nga xam ne ñoom ñoom la soxal ñu taxaw waxtaan ba trouver benn comité ad hoc ci comité ad hoc boobu nag dañ cee defoon ñeenti point waa ñeenti bi mooy bu njëkk bi moom mooy association yi nga xam ne dafa bari ñaar lañu ñu nekk benn d'abord toog mën a waxtaan kooku moo doon bu njëkk bi bi ci topp mu ne daf ñuy indemniser indemniser nag ndàmpaay la ndàmpaay boobu dafa ne woon da koy commencé euh, deux millions ba cinq millions ça dépend ci taux bi nga am parce que mën nga am dix pour cent ñi am ay trente pour cent ñi am ay cent pour cent donc loolu la waxoon da koy lijjanti te boobaa ñëpp lay fay invalide militaire yi loolu lañ jàppoon bi ci topp. moo doon logement sociaux maanaam euh, logement yi nga xam ne dëkkuwaay dëkkuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jàppale ñi nga xam ne dañoo way laago yi nga xam ne ñu ngi jóge armée dëkkuwaay dafa waxoon nag dinañ ci jox waaw ci li ñu d'accordoon euh, su ma juumul 4 pour cent lañ d'accordoon ci logements sociaux yi nga xam ne Sénégal président Macky Sall mu ngi ko doon bëgg jox population bi bo bi mujj nag mooy euh, liggéey liggéey bi nga xam ne dañ ko sàkk woon pour ñi nga xam ne suñuy suñuy su suñuy élément lañ ñi nga xam ne mën nañoo astuut liggéey bi nga xam ne mën nañ ko def wala jeunes yi ñu am ñu leen jël insérer leen ci société publique yi ñu mën a am benn liggéey bu ñuy suturaloo boole ko seen pension bi nga xam ne euh, gaam tane na bu baax nag parce que bi Macky Sall ñëwee fexe na fexe na ba Euh, pension yi léegi xaw na tane tane laa wax parce que dugg na dugg na foo xam ne nit su ko jotee war na mun a am tuuti lu muy suturoo mais des na lu bari lu mu war a jayanti moo tax nag indemnisation yi mu amoon njëriñ trop trop trop ci ñun ndax dina am lu bari lu muy fàtt Mhm. Euh, bu weesoo indemnisation yi sànq yaa ngi doon euh, signaler euh, problème mu médicament yoo xam ne da ngeen ko am loolu naka la demee exactement. waaw ba léegi rek may dellusiwaat ni médicament yi aussi droit la xam nga boo blessé yàlla dafay def da ngay dañ lay fay weer. dañ lay jox karne booy fajoo ko heure du moins booy fajoo léegi carnet bi ngay fajoo nag dañ lay bindal ci médecin bi chaque mois bu ñu la bindalee médecin bi nga dem ca pharmacie ba ñu jox la ko pharmacie dañ leen a tàng boo seetoo au niveau du Sénégal defe naa bu dul fukk ak benn pharmacie ñoom lañu agréé ñoom ñoo am droit joxe suñu joxee état fay leen léegi nag jamono yi ñu toog nii presque deux mois ngi nii euh, pharmaciens yu bëri surtout juróom-ñeenti pharmacie su ma juum euh, waaw set waaw set yoo xam ne euh, juróom-ñaar fukk juróom-ñaari pharmacie yoo xam ne dañoo dañoo kii dañoo ne ñoom du ñu joxe ndax ndax dañoo toog ba léegi seen booy kenn joxu leen ko fayuñu leen ñoom aussi bu ñu leen fayul du ñu mën a fay seen fournisseur mooy ñu leen jox garab moo tax ñoom aussi daal ñu daal di taxaw waaw taxaw boobu nag vraiment métti na boo amul xaalis amoon loo fajoo mais xam nga soxna si ni muy demee après ci su koo xam ne mënul dara tëdd ci lal mënul dara exemple laa joxe. Mm-hmm. Mm-hmm. bu weesoo loolu lan mooy yeneen jafe-jafe yi nga xam ni yéen a ngi koy jànkoonteel actuellement. waaw euh, mooy mooy mooy comité ad bala mu teg rek mooy dëkkuwaay bi ci topp dëkkuwaay. dëkkuwaay parce que pension moom euh, comme def na benn def jéego ci pension yi surtout nag anamis la kii laa wax mooy ñi deful quinze ans def na jéego ci ñoom mu njëgati encore def indemnisation indemnisation yi mu def tam jéego la mais na mot. bu motee rek dina gën a baax parce que loolu moom moo tax moom mu xalaatoon ko jëf nag boo koy def départ soo ko soo ko entamé rek eggali ko rek eggali ko looloo gën comme ça jàmm mën a dellu si dëkk bi ndax ndax tamit beneen affaire bi nga mu ngi taxaw mooy problème mu dëkkuwaay dëkkuwaay comme ni ma ko waxee rek euh, soxla nañ dëkkuwaay ndax xam nga pension bi ñu yor mënoo ci wut dëkkuwaay. donc day métti nga wut ci dëkkuwaay d'autant plus que léegi euh, foo bëggee am kër wala terrain sax dafa cher mais mais lii bu ñëwoon dana am sol lu bari lu muy fat nit mën na ci am benn lopin de terre am wala mu yeggali ci këram wala mu def ci loo xam ne dina toog lu yàgg vraiment mu doon avantage si moom. Mm-hmm. loolu problème la li si def nag mooy comme ni ma la wax rek ñenn ñoo xam ne waroon nañ mën a liggéey ba léegi ñu jël leen dugal leen ci ci yenn société si euh, euh, état yi nga xam ñoo ko moom. ñu utiliser leen fa ñu liggéey ñu mottal parce que ay xale la ñuy doon d'habitude euh, du ñu am ah du ma ah, âge boo xam ne war nañoo mën a toog. waaw yàlla dafa ñëw ak feebaram wala mu ñëw ak làggoom rek mais mun na ñoo xel maa ngi fi donc war nañu mën liggéey liggéey yenn yi quoi. Mhm. waaye waaye euh, Mass euh, Dieng plutôt mhm. lan mooy expliquer situation précaire bi nga xam ne blessé de guerre yeeg euh, retraité yi ñu ngi koy dund alors que ñoom def nañu façon sacrifice bu ne si si si àll bi si terrain bi ngir défendre armée sénégalaise couleur nationale yi. waaw gis nga madame wax nga ko wax nga ko xam nga xam nga soo jëlee option armée mooy maanaam wuti woo xaalis quoi armée moom boo jëlee option la wuti woo xaalis dama koy faral di wax parce que foofu euh, coono moo fa nekk ak risque ndax buñ lay recruter boo ñëw da ngay wër sooy génn itam da ngaa war a wër donc li ñuy deg ci terrain bi ñu génn ci biti dem nañu xeexi ci biti gis nañ li fi nekk ñi nañu fi nekk fii Casamance gañ gaañoo fa ñii dee nañu. donc coono yooyu boo ko dajee ba pare nga dellusi si nañu weer de ñu war la fay nga am loo xam ne vraiment euh, jàppandiwul noonu wala ñu dig la dara pour nga lijjanti say problème ñëwul day métti ndax boo seetloo dëkk bi lii gën a sonnal mooy dëkk bi lépp yokk léegi soxna si boo seetee ceeb bi yokk na diwlin yokk na facture courant yokk na ndox mi yokk na lépp a yokk loo xam ne euh, dépendre ci ci Sénégal sax mais àddina bi moo tëdde noonu alors bu àdduna bi tëddee noonu nag difficulté yi nga xam ne koo xam ne il est en fonction da koy am koo xam ne mi ngi liggéey da koy am asama koo xam ne dafa retraité toog pension kese la yor donc ku mel noonu bi ci toppaat teguwaat ci ci toog bi mooy nga feebar teg ci xam nga mën nga retraité sax te doo feebar nga mën a defi leneen mais koo xam ne dafa retraité feebar tëdd mënul yenn yi wala su su tàngee mu sonn bon ak problème sédentarisme bi nga xam ne soo toogee feebar yi da lay dajaloo sa kaw bon yooyu yëpp su dajaloo mais doo mën a soo amul garab booy jënd xaalis boo jëndee nga dem pharmacie ñu bloqué sa sa sa sa kii sa sa médicament mais finalement nag da ngay nekk dans la précarité loolu mooy indi mooy indi mooy indi coow li. mu mel ni nag indemnisation bi nga xam ni président joxe na ko ñenn militaires yi jot yeneen yi jotuñ daf leen a jaxase ci seen biir. waaw euh, dama man peut jaxase bi laa dul nangu noonu parce que euh, suñu biir jaxasewuñu ndax ndax ñun xam nañ ne ñun fayuñu kenn waaw maanaam maanaam état moo war a fay donc suñu biir xam nañ ne ñun amuñu problème boobu parce que ñun ñëpp nous sommes des anciens militaires xamante nañu donc tey jii li ci xaw a métti rek mooy man su ma jotee keneen jotul loolu du neex ci xol ndax dafa dem ba jaxase kër yi ndax kër yi dañuy yaakaar ne nit am na. fekk jotul nit ñi naan pa bi jot na wala grand bi jot na xaalisam mais bugul parce que moroomam mi jot nañ xam nga loolu day indi problème ci seen biir famille mais suñu biir xam nañu ne ah ñun fayuñu kenn mais dañ ne war a fay donc bu ñu fayee kii fay kii kooku responsabilité état dong la mais suñu biir amuñu benn problème boo xam ne daf ñoon da diviser ndax affaire xaalis bi non ah li ma xam bokk li ma xam te mu mu leer ma ne ñii parce que boo seetloo bés bu ñu wootee pour daje. ñëppay ñëw ñu mën a ñëw ñi mënul ñëw ne dañuy toog mooy ñu ñuy fay ak ñi ñuy fayal dañuy teew mm-hmm. léegi kon tey jii ak euh, situation bu metti bi nga xam ni moom nga expliqué euh, mm-hmm. ban appel nga si lance njiitu réew mi nga xam ni moom moo nekk chef suprême des armées euh, def na aussi ay jéego yu am solo ci armée mais gis nañ ni des na ban appel nga koy lancé par rapport ak seen situation globale bi ngeen di dund. waaw di ko di ko dolli di ko di ko waat ko waat encore parce que di wax naa ko ci rajo yu bëri euh, damay bañ a def publicité rek mais euh, maa ngi koy ñaanaat encore bu mënee xoolaat encore situation bi euh, la mu nekk la la mu defoon ci dënnam mu bugg ko defal ay doomam ay ay surgaam. ay ay ay ay ay ay ay ni koy waxee sax ci olof du façon moom mooy moom mooy kilifa kër gi mooy kilifa dëkk bi donc ci moom lu ginnaaw suñu borom ci lu bari ci moom la mën a jógee moo koy ñaan encore mu mu ja dolliwaat jéego li mu def baax na am na lu mu ci def lu baax mais dañu bëgg jéego bii mu yëkkati woon mu mote ko mu mote ko mu def daal ba nga xam ne vraiment ñëpp dinañ ci jot. ndax euh, boo diggee ba pare rek euh, yeggali ko moo gën te su doon sama sago nag man mii nga xam ne kooku man mii maa ko ña maa ñaan kenn ñaanu ko maa ñaan président de la république lu baax boo koy def gën ko fuul parce que ñi nekk ci biir armée bi te am nañ ci solo ñooñu aussi dañ ci lañ bokk ay doomu dëkk bi lañ ñi ngi am gaañu gaañu mais ñu ngi konne di liggéey ñu boole leen ci ñi nga xam ne aussi dañoo nekk jabaru militaire yi mooy veuve yi seen doom yi ñu ngi fi. des xale yi ndaw la blessé bi di bàyyi dem si yoonam mu bàyyi ko ak ay doom yoo xam ne mu ngi difficilement pension bu mënu ko régler dara alors mu boole leen ci waaw yooyu daal vraiment su ko defoon rek ah vraiment je crois que dinañ mën a tëdd nelaw ñiy jiitu yàlla na yàlla yërëm seen seen seen seen kii dinañ tëdd tëdd bu bu bu sedd guy ndax seen njaboot ci gën ginnaaw toptoon nañ leen vraiment man daal loolu lay lancé au président de la République mu jàpp ci encore góor dolli góorgóorlu dolli def dooleem dolli def xalaatam. ah ba nga xam ne rek ah doomam yi nga xam ne ñoo serviloon nation bi ak ah, ñu am mujj bu rafet. Mm-hmm. ngeen defoon sitting ñu tere leen sitting bi bëgg ngeen defaat beneen manifestation wala da ngeen koy bàyyi. waaw ah, sitting yi ah, gënaluñu ñun xam nga tey bu ñu demee ba ci biti di xeex wala di taqaloo di dajal ak suñu frère mi yi loolu du lu ñu gënal. mais mais mais mais par rapport ak situation yi nga xam ne moo ñëw daal ni dañ ci waxtaanaat xool. ban stratégie la ñuy def mais pour l'instant ni daal ah, dañuy dañuy dañuy yëglu yëglu nañu pour ñu xam ne fii la ñu toll te dinañ ci gën a waxtaanaat mais yaakaar naa ne daal ah, ah, mel ne beneen sitin du fi amaat ci digganteem ci sama xalaat waaw di fekk autorité comme buñ ko jotee incha allah dañuy yeggali lépp li nga xam ne ñaan naa leen ko yaakaar naa dañ ko def waaw waaw duñ ko defee rek je crois que dootul am benn benn benn euh, kii buñ ci teg beneen jéego buñ ci teg lu dul di leen do di leen dollee rek waaw loolu la mais pour l'instant euh, ñu ngi defagum euh, restitution réfléchir évaluer xool qu'est-ce qu'il faut faire après cela ah parce que aussi ay kilifa boo bu ñu boo leen yëgloo ba pare da leen di may déglu leen seet nan la ñuy waaw bu ñu réagir nag dinañ xam qu'est-ce qu'il faut faire après. Mhm. kon Mass Dieng ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. maa lay maa lay maa lay sant bu baax yow tamit ndax euh, li ngeen def lu am solo la ah, def nga defal ngeen ko seen i doom defal ngeen ko seen i jarbaat te te vraiment ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal dëkk bi mu am jàmm ak salaam. Mhm. Dieng yow yaay président bu cellule régionale de l'association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal jërëjëf ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax Mass a